sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli déglu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu seen rajo seen jotaay mu tudde albidaay ngeen koy am guddi àjjuma mu jot ci waxtu wi di leen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk alxaaji Sëriñ Mbàkke Sylla ak seen mbokk Alioune Sall de sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër alxaaji Sëriñ Mbàkke Sylla ak ni ci studio bi toog xaj Mbàkke assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bàyyi la nga nuyoo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 amin xaj Mbàkke yàlla na fekk leen ci jàmm nu jotaay bi tëddee jërëjëf oustaz niñ ko baaxoo tëralee lañ koy fas yéene tëraleeti insha allahu taala daañu ñëw léegi ci xibaari daara ji maanaam xew-xew yi gën a ràññiku ci ay bis gi ñu nekk ak gi ñu génn noonu lañ ciy wéele ba min wi jot ñu ànd mbokk yi ci tënkum xibaar yi ci français ànd ak ñoom ñu tënk ko ci wolof ñu dellu si nag ànd ak auditeurs yi ci téléphone bi ci 88 628 98 98 33 841 22 33 buñ demee ba 1 heure 30 jot ci lañ koy jeexal ci xaaj boobu dégtalaat leen tafsiru quranul karim bi ñu amoon ay bis ji ñu génn buñ ci noppee ànd ak ñoom déglu alkitab ànd ak ñoom ci euh, rijalun xawla rasul buñ ci noppee ànd ak ñoom ci arrasidun noonu la ñu wéyale jotaay bi oustaz ba 5 heures jot ñu déglu alquranul karim 5 heures 30 ñu ànd ak mbokk yi ci almisbah 6 heures ñu ànd déglu waxtaanu fajar yi tey di alxames kon fajaruk àjjuma la euh, waxtaanu fajar wi day baaxoo amub tem tem bi mooy doon ilallahi ibadallah maanaam jéego yi nit ki di jéggi jëm ci boroomam subhanahu wa taala oustaz noonu la jotaay bi fas yéenee tëddee mënuloo moroom xaj Mbàkke jërëjëf xul xadan xadan fa innama al umru zaman xadan xadan mooy nit koo xam ne kii saa bu xëy ne bu subaa laay def nangam du def dara mag ñi defoon ku deful ni mag ñi doo def lu mel ni li fi nekkoon yaa ngoog tabarakallahu ñu ne coow ba fële ca kër Masaar fekk fa faatu Diallo yaayu Mouhamad Al Bachir ne ko asalaamaaleykum. fekk fa Binta Fay ne ko Binta asalaamaaleykum. Pikin fekk fa Ndeye Aram Dia ne ko Ndeye Aram Dia asalaamaaleykum. Diallo ne ko ma nga ca Faan asalaamaaleykum madame Diop Kër Massar. Wurey Diop nekk fële ci cité Mandela soxna Wurey asalaamaaleykum. Tugay mi ngi ci Wakaam Makhtar Cissé ma Mboro wala bokk waaw ma Mboro Adja. Aja Jàmbay ma nga fële ca amoo salaamaaleykum. bilaadil muslimin. salaamun nuxuqan li kulli bilaadil muslimin kon yéen ñëpp salaamun maam Xewa Njaay Kër Mbay Fall salaamun. Moustapha Ñang Sir Mang Voyage salaamun. ca Vigo la nekk salaamun Moustapha Silla ca Paris la nekk salaamun. Baye As ci almamlakatul arabi saoudia salaamun Roger Diouf ci France salaamun. ñoo ngi koy làmb di ko jéem a jot saa su nekk Assane Ndiir salaamun. fekk fii. alxaaji sëriñ Mbàkke si lañ ne ko salaamun waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu daane la tafaddal mashkuran fa jazakallahu xayran jazakallahu xayran oustaz jërëjëf ci nuyoo yu am solo yooyu salaamun yooyu nga ubbee jotaay bi ndeysaan kon nag salaamun yooyu ñooy jaar ci suñu whatsapp yeeg mhm. ñu demee ne ko ci biir réew ak ci bitim réew macha allah ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di nuyu ñi nga xam ne itam ñi ngi bëgg salaamun yi agsi ci ñoom te jutta agsi ak ñi ñoom ñëpp ne ak ñi jotoon a bind te jotoo leen a tudd waaye ñi bég ci jotaay béeg di ko déglu ñëpp bu ñu leen bëggee nuyu bët dana set duñ matal kon nag ñoom ñëpp rek ñoo ngi leen di wax salaamun salaamun <laughs> tubarkàlla oustaz na ngeen def ak coono yi ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax macha allah alhamdulilah mbaa yéen a ngi ci jàmm waaw noo ngi ci jàmm mhm. jàmmi ndongo jàmmi ndongo mhm. waaw jàmmi ndongo da nga ma waxoon ca ay bis gee waaw wér gi yaram te amoo xaalis <laughs> jàmmi ndongo loolooy jàmmi ndongo wér gi mooy jàmbi ndongo. ndax booba léegi maa ngi koy xalaat rek. <laughs> am ñàkk xaalisum ndongo moom daa metti loolu itam. munu fee weesu. Eh, oustaz na xam naa li gën a metti mooy nit ku banque te nit ñi xamuñ ne daa banque maanaam ku ñàkk xaalis pare nit ñi yaakaar daa ñàkk xaalis. ce que xam nga noonu la ko alxuraan waxee. ah. gaa yi dañu ne. Hmm. danoo yor luñ bëgg a joxe. ndeysaan. gaa yi dañu wax loolu. Hmm. ñun daal dañu yor luñ bëgg a joxe. Hmm. te bëgg ci sa ngërëm. ndeysaan. te en tant que technicien tuyaaba. ñun ñuy jox. mu ne lil fuqara kay ñu ne ab fuqara bëri nañ mhm. mu ne allazina usiru mhm. fi sabilillah fi sabilillah ñi nga xam ne li leen te am li gaa yi am mhm. mooy di xëyal yàlla allahu akbar allahu akbar dem bitim réew cey am na liggéey ñu mënta dugg cey ci diine ji dong lañ mën a dugg cey suñu borom ne bu ngeen leen joxut ñoom duñu am wax nga dëgg mu teg ci ne laaj sa alu naas ilhaafa du ñu laaj. mënuñoo mm-hmm. laaj mënuñoo laaj. ndax bu ñu laajee ñu jéppi leen. Mm-hmm. <laughs> am na ñooñ bu ñuy laaj sax dañ ñii dañuy fonto ni yor nañ loolu la ñuy daal di wax de. <laughs> mu ne ba aaya ji mi ngi woon ci téere bi. <laughs> mi ngi ci nga xam ne moom day régleel problème wala day waxal euh, nekk làmmiñu ñi nga xamante ne dañuy loru. peut-être mënuñoo ubbi bitik dem di jaay. ndax seen option bi ñu jëloon du loolu. waaye nag ñi leen war a jàppale dañuy jàpp ne ñii euh, yor nañ te ñoom mënuñoo wax ne li ngeen foog nekku fi. fekk yu ñu ñu li ñu wax li ñu foog nekku fi. <laughs> waa nga dëgg de. laaj olona si ilhaafa wallaay ndeysaan est-ce que waaw nee naa sama benn xarit léeg de nit toog ak wala boog léeg nga toog ak koo xamante ne nii ndeysaan xëy na sax li mu natt cim xelam mooy mënul laa jox dix mille wala ñemewulaa jox quinze mille ndax jàpp ne kii moom ay mbiram a ngi dox bu baax man lay lor ndax aw <laughs> lépp kenn mënu koo wax rek damaa mas di bayaan ci jàkk sàngam waaw Mbàkke su ma bayaanee ba noppi euh. damay doxe ñaari tëli la woon waaw doxe mhm. ñëw ñibbi si jëppal ndax ñàkk lu ma dugg mhm. fi may waxee euh, genn góor agsi aku mil ndeysaan aku ah. di ma ko jox mm-hmm. genn gone ni ca jàkk ja ah. ne ko bidaa la luy bidaa joxe mil yi maanaam di bayaan ñu lay jox xaalis salaaw saa yow bi tey mu lor la de te dangaa nar a dox ñibbi <laughs> loolu def dangaa bàyyi noonu ah. lu may lu may def nga ne ko du bidaa waaye tegal fii am <laughs> <laughs> mu eh, nekk daal daal jóg rek ne papa bi daal la ndeysaan bi ne ko seen jàkka jee baaxut xuloo ba na cobbay mhm. yow nga ne cell rek ah. Ah, waaw nga muñ rek parce que foofu mënu seet waaw pexe amut pexe amut mhm. pexe amut mos <laughs> ci millions yi ni ma ko soxlaa woon ndeysaan seet yàlla xam ndeysaan kii maan dëgg la donc suñu borom wax nii <laughs> ah. loolu dëgg ko réglé woon seet nit ku banque te ñu mun wax damaa banque mhm. yàlla mu ne bu ngeen jox tàmbali leen ci ñoom. macha allah kon lool mooy jàmmi ndongo. mooy jàmmi ndongo <laughs> jàmmi ndongo ji nga doon wax rek laa doon xalaat ak jéem a firi noonu. tubaarkàlla jàmmi ndongo bokkut ak jàmmi sëriñ. déedéet macha mm-hmm. naka daara yi. waaw daara yi de ñoo ngi ci de. Mm-hmm. waaw ñoo ngi di. di nam na bi càkkal mm-hmm. euh, bëgg ubbi nit ñëpp. waaw. bëgg yu ubbeegul ubbi. ndeysaan. bëgg ju ci nekk àgg fa mu war a àgg. ña nga ca nag waxtaan yaag technique yaag ya koy doxal. waa ah, incha allah. Mhm. noppi nañu ca euh, sew xaay. waaw dañoo bëgg sogg àllu nguraan bu bu ndox mi wàññeekoo. Mhm. waaw. Mhm. bu ndox mi wàññeekoo. nu song nag àllu nguraan. incha allah. allah euh, def ca doole yëpp ak pexe yëpp ak. luñ ca dajale. Euh, ña nga woon ca Daara Jolof waaye dañoo waxoon ne da ngeen di muñ ñu yokkal leen ko. waaw da di muñ yokkal leen teere bi ndax teereeb daara. bu du toll ni teereeb kër. Mhm. ñu nga doon xaar loola nag moom itam macha allah. Mhm. waaw ba yàlla def ci taw fii xëy nañu song ko moom it. Mhm. waaw. ca Thiès moom it ubbi nañu ña nga cay liggéey ba. xam naa jombal semaine bi danañ fa dem pour def bande annonce yeeg ñoom seen yooyu. waaw incha allah macha waaw dar ci moom tàmbali na franco ba mhm. yi xam ne moo jëm ci franco arabe mhm. ndax comme ci programme lay nekk mhm. euh, bu bu xasee weesu naa nga mi fan léegi ku ñëw doo mën a dabee dëgg la waaw dëgg la loolu moom am na li fekk octobre ñu ngi ci peut-être danañ mën a bind ba le quinze lu ko ëpp tuuti macha allah ah. yal na yàlla barkeel lépp amin tubarkàlla te suqali daara yi te suqali daara yi macha allah <laughs> naka waa conseil économique waaw conseil économique. Euh, wala ñoom gëj nañoo def dara ñu woon ci bër. Mhm. waaye balaa weer wee jeex nag bër gi dana jeex. Mm. waaw. Mm. balaa weer bi di jeex. Mm. bër gi dana jeex. ndeysaan waaw. ñoom bari nañu liggéey noonu oustaz ba ciy bërante. munu fee weesu. ah man na conseil économique problème bi am ñoom mooy dama dama dama leen dul yëg daal seen seen seenu yëngutoog yooyu. munu fee weesu nag. ah waaw. man nay waxtaane de <laughs> man nay waxtaane ndax ñu xam seen i njariñ tuuti bopp. man léeg-léeg daal dama naan conseil économique ak haut conseil googu damaa yaakaar ne clientèle politique bi nga xamante ne rek dañoo toppoon président te xamul nu muy def ñoom la jël kaase leen foofu. dogoon ko nag yow ma nekk conseil sax ma gën cee kii waaye naa wax lool rek. ñee ñee de leen. waaw waaye yow daal sa bos ngay kii daal suñu bos bi <laughs> eh. xam naa ni ñu ngi ci ñu ngi ci wàllu googu. Mm-hmm. di ci léegi lu am solo. Mm. di daje di réunion di xalaatal président. Mm-hmm. nangam ji lii moo ci sunu xalaat. Mm-hmm. nangam ji lii moo ci suñu xalaat. lépp loo yëg nag ci réew mi am na am na benn benn commission. bu cay yëngatu. commission boo xam ne bi ku ci nekk da ngay bokk ñaari commission. waaw bu réunion bi amee nga dem bu réunion bi amee nga dem. Mhm. ñu dajale lépp tënk ko ci biir yi ko ñëw toog. tubarkalla loolu am na solo ba de. léeg ñu wax ko ne ko jiw yii. Mhm. lii ci sikk. Mhm. njëndum gerte mi nii la. ndox mi ci dëkk bi nii la. Euh, transport bi nii la. Mm-hmm. sport bi nii la. Mm-hmm. wér-gu-yaram gi nii la. Mm-hmm. feebar yi dal ni te du te du te du dakk mukk. seen ndimbal nii la. et cetera et cetera. waaw noonu lañ koy doxal macha allah loolu kay am na solo lool. am na solo xam naa réew mi mooy réew mooy ànd ak yëf yi di ànd ak ñu koy yëngal ak xumbal. moo tax bu loolu amul rek ñaare man ñu mel ne man mën nañoo bañ a yëg la ñuy def. waaw xam nga sunum réew moom. mu ngi noonu daal. <laughs> léeg-léeg nit di wax ci lool. yow ma ca nekk boo déggee li wax. Hmm. mu rek nga dëgg la de dëgg la de. mu rek nga a hmm. moo tax wax sa xalaat ak yooyu di jar di déglu. dëgg la. waaw <laughs> di xam li xew ci réew mi <laughs> macha allah loolu am na solo jërëjëf oustaz kon ñu ndokkeelaat la bu baax a baax ci taxawaay yi ma sawula ci coono yi hmm. ñaan borom bi mu barkeel léegi léegi ñu waxtaan ba jëm ci mbirum seen bu sekk waaw mbirum ferrailleur bi waaw <laughs> waaw waxtaan ci ci kaw buñ ko doxali ci lay baax mais buñ ko doxali du baax ndeysaan waaw dëgg la dëgg la loolu baax na. daal di tënk ko. loolu baax na waaw te ñoom bu sekk xam nga ñooñu leen yëngatu. waaw ci feeraayel mooy mooy kii woote wax sa xalaat. Ah? waaw tubarkalla jàmbaar jooju rek. <laughs> ndeysaan jàmbaar ce que. yàlla na ko yàlla sàmm. amiin yaa rabbal alamin amiin amiin yaa rabbal alamin jërëjëf oustaz jërëjëf ci ubbi gu am solo googu li ñuy def rek mooy daal di euh, waaj nag dugg ci xibaari daara ji. incha allah euh, niñ ko baaxoo defee actualité yi nga xam ne moo soxal réew mi te ci ay bis gépp dañuy déglu édition spéciale yeeg ganu xibaar yeeg ñi koy jàngat waa daara ji ñoom toog féetewoo déglu bu alxamesee ci heure bii mu nekk occasion boo xam ne dinañ ci am ay tomb yoo xam ne danañ ko indi waxtaane ko ñun ci fiñ toll am ñoo xam ne itam moom la ñuy xaar di ko wétli ko te it waxoon naa la ne hmm. daanaka looloo waral hmm. xutbab jumaa xutbab jumaa dëgg la fi ne booy jullee ci jumaay Ahmed Dame Ndiaye ji hmm, li lay ump ci waaw déedéet Hmm, ci actualité actualité yi. waaw li la ci ump du bari ndegam dana am. Hmm, hmm. loolu loolu moo waral xutba bu jumaa. dëgg la dëgg ñu may imaam ñaari ra ñaari ñaari rakkaa yi. ne ko wuutal ko xot bu jumaa. waxal ak waa pénc mi. ci actualité bañ xam li xew. macha allah loolu am na solo lool jërëjëf oustaz ci taxawaay boobu fi ma koy dooree de suñu waxtaanu tey kon ci xibaaru daara ji mooy fële ca IPRES. ay bis gële ñu génn ca conseil de ministres ba daa bokk ca barab yi nga xamante ne dañoo soppi woon seen njiit indi fa keneen gannaaw ba nag loola daal di indi coow lu bari ndax ñoom nee nañ dañoo bokk ci barab yi nga xamante ne du président rek mooy xool ku ko neex rek tànn ko fal ko noonu ci décret waaye seen conseil administration booba daal moo ca am taxawaay boo xam ne moom la cee am oustaz nooy jàngatee xeetu falin yeeg soppen geeg euh, dugal geeg génne gi ci réew mi solo ci alxuraan mm-hmm. alxuraan daa wax ca saar wa hmm. kere bañ xeexee uhud ba noppi hmm. ndeysaan faafu anhum hmm. wastaxfir lahum wa shaawirhum fi l fi saa asamta fa tawakkal allah ñeenti yëf la ñeenti yëf yooyu kuy sàmmoonteeg moom doo doo teg teggi la ci jiitu mooy faafu anhum del jëllale mhm. wastaxfir lahum del suturaal mhm. wa shaawirum tey waxtaan mhm. soo jëllalee ko suturaal ak waxtaan force bi ngay am mooy tax sooy dem fa isaa asamte ngay demee su boobaa boo tegee duñ teggi ndax wax nañ dëgg waa kër googu noonu lañ daan fale donc soo jógee falal leen. dañ hmm. naan la yow booru ñoo falal. dëgg la te ñol-ñol jooju du dëkk mukk li fekk dindiwoo ko. Hmm. Hmm. su ci delloo ginnaaw nag jox leen ko ñoom. ñoom daañ man nekkoon kon nii lañ daan def. bu kii demee kii fa rësës. ñu teg fa kooku fa sës ne ko nag toogee li fi. ba baax ñuy jekk si ndi ko bay indi na ki fi toog. dëgg la. macha allah loolu mooy yëf ya. est ce que moom en tant que président ci waxin. war naa mën a def loolu bu dee njuumte la war naa mën a juum juum gu mel noonu ci wàllu administration. waaw moom la alxuraan jàngale woon nii damaa hmm. xamul nag. Hmm. est ce que looy tubaab moom jàngalee na ko nii. Hmm. <laughs> en tout cas looy alxuraan moom nii la ko jàngalee. ñeenti yëf la def. faaf faafu euh, anhum wastaxfir lahum wa shawirhum fil amr door na fa isa azamta fa tawakkal alallah noonu la ko jàngalee waaye tubaab moom nii la ko jàngalee wala déet. Hmm. waaye looy alxuraan moom nii la ko jàngalee. macha allah mooy si koran ci laaj bu am solo bi. jërëjëf oustaz jërëjëf ci tontu lu am solo loolu mi ngi noonu yaatu lool xam naa wàllu falu ak folleeku itam war nañ cee waxtaanaale ci occasion boobu. am na bis boo xam ne ci ay bis gi muy mercredi wala alarba ci waxin wi boo ñëwee xool daal oustaz bu communiqué conseil des ministres bi jàllee. Mm-hmm. da ngay dégg euh, diw remplacé waa defe naa noonu la ak appel la lan d'autres fonctions mhm. mu mel ne folleeku yeek falu yi day bari lool mu ne ci diggante boo xam ne daal euh, mbir yooyu tegu na ci loxol kenn nit ci kàttanu borom beeg ni mu koy doxale mhm. loolu noo koy jàngate yow waaw conseil ministériel mhm. bu fekk nu la nga waxee mooy barab boo xam dañuy toog di natt ku ci nekk lañ la santoon ndax loo man la ndax loo tëli la ndax da ngay ne hmm. ndax dangay tàndale. tey mooy waral bu ñu ñëwee ba natt ko. Hmm. ministre bu nekk wala ministère bu nekk ñu dugg ci saytu ko. Hmm. daañu xam ni kii bu ñu ko yóbboon fële ci lay gëne. kii bu ñu ko jëlee fii ci lay ci lay tane. kii bu ñu ko jëlee fii loolu mooy waral. pal yooyu ñu koy fal ca barab yooya. Euh, di dindikale dugal fële dindikale dugal fële. ba baax ñuy demaat ci quelque temps. peut-être mu am ab diir. léeg-léeg mu xaw ko ñàkk mat ma mhm. tax ñu naan woo nañ diw indi ko barab sàngam mhm. dañuy diw mooma nag dañ ko woo feneen mhm. waaw diw mi yoroon sàngam jël nañ ko jóbbu ko feneen ki dañ ko wooti woot ci leneen noonu lañ koy defee macha allah te itam euh, doxalin danay am léeg-léeg ñu jële kenn fenn foo xam ne lu tax ñu jële ko fa dafa am lu mu fa def lu lu def wut léeg-léeg nag gaañu duñ def fallu defut au lieu ñu sanctionné la wàcc la léeg-léeg dalañ dañ lay sanctionné jëlee la fi nga nekkoon yóbbu la ci feneen foo xam ne fi nekkoo foon mhm. ñu jàpp ko xeetu sanction waaw dana fa dana ci am léeg-léeg mhm. léeg-léeg ñu jox koo xam ne ki nag poste bi ñu ko jox poste neexal ko la mhm. waaw yëpp la fi am macha allah ci seen penc moomu Euh, wa shukran ci salaaj ba am solo bi. macha allah jërëjëf oustaz ci tontu loo am solo loolu ak ñi nga xamante ne ni noonu nga ko tontoo euh, jëm ci wàllu euh, fal yi ak yi nga xam ne moo demee noonu. nga xam ne daal bu tàkkusaan ja jàllee léeg am ñu bëgg lool bay dégg félicitation <laughs> waaye am ñoo xam ne itam danañ jaaxle lool bay dégg massa ndax na mbir ya tëddee. loolu de moom doy na waar dëgg xanaa ko falu kon de waroo loo bàkku bàkku ak luñ la luñ la tagg tagg nga war a sóoraale bis bi. Mhm. Euh, wataan si mulka mi mënta saare bis ngi ñëw rek suñu borom loolu mu la joxoon mu nangoo ko say loxo ñu teg ko ci loxo yi keneen yow ma ko yoroon nag nga seeti leneen baa nga toog di muñ loolu moom ci pal ku ñu fal ku ne alayhi salaatu salaam nee na yàgg janax ju dugg ci ngar yéen yem boo dugg ci ngar li janax day ànd dox ndànk mook jabar jàg doom yi waaye bu ñuy dindi ngar la ba mu des te fam nekk moom dong hmm. day sa mbuxi la moo ko njabootam waaw di daw di dem. di daw di dem <laughs> macha allah loolu kii maan la jërëjëf beneen bi nga xam ne moom laa ciy teg oustaz ne ab actualité. Mhm. day des ba léegi ci wàllu politique ma dem fële ca parti socialiste. Mhm. ñoom ñi ngi doon amal euh, démb wala tey hmm. mm, euh, ci lu jëm ci wàllu parti ba gannaaw ba nga xamante ne ko ku jiite woon di Ousmane Tanor Dieng dafa wuy ji boromam euh, fi mu ne yaxal nañ ne ki nga xamante ne mooy Aminata Mbengue Ndiaye moo war a nekk secretaire généralu parti booba hmm. xam naa parti socialiste de bu ñu ciy waxtaan ci réew mi moom dana am ay souvenirs yu bare bari yu ci nit ñi am ndax parti bu fi jiitu la te xewoon lool oustaz jotoon a yor réew mi itam nooy jàngatee tolluwaayam ci jamono ji wallaay ndeysaan hmm. ñoom Ablaye Wilane ndeysaan Euh, dañoo am sensu bi partie bi di am dafa am lu ñu tuddee école des partie école partie parti wala école u parti bi nga xam ne ni école des arts amee woon nga xam ne ku bokk ci parti bi rek daañu la jàngal luy politique waaw luy politique ba nga xam luy politique daana ci am ca partie yooya léegi nag euh, loolu amatul ñoom chance boobu lañu am léegi nag bi nga xamee ne Ousmane Tanor génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm. amiin yaa rabbal ko amiin amiin fokk nag ñu am kuñ doxal ni kii moo ci toog ba baa ñu dem congrès. Mhm. léegi nag kañ li ñu dem congrès. Mhm. mooy kooku dafiy toogee li ba baa ñu dem congrès. Mhm. suñu toppee sarti parti ba nag. moom yi moo war a toog. comme ni ñu maanaam ni ñu tegalee woon ndomba tànk yi moom moo ci war a toog. moom moo ci war a toog waaw. te moom it ku ne xam na ne ci penc mi. Euh, xam na du ma wax jigéen ju mën góor. Mm-hmm. ay jàmbaar la <laughs> jàmbaar la. jigéen ju jàmbaare la. jigéen ju jàmbaare la. <laughs> macha allah ndax yiñ ko joxagum. Mm-hmm. yiñ ko joxagum. Mm-hmm. lu ci nekk def na ci lool bu fa jógee. wuutu ko fa du yomb. dëgg la lu ci nekk. Euh, xam nañ ko ci loolu. moo tax bu bu gaañ tajee ne ko a ci yow la. moom it discours bi mu njëkk a def. mooy nee ngeen man la mais na ngeen jàpp ne ñun la. ñun la waaw du man doom ko du man dong macha allah. Hmm? nee ngeen man la. Mhm. waaye na ngeen jàpp ne ñun la. Mhm. ana góori parti ba oustaz ba ñu jël jigéen di ko jox ñoom it. góori parti bi xam nga dafa amoon ay. Eh, ay benki ñenk ay benki ñenkeeg. Mhm. Euh, kurpañanteeg poñante. du dëgg. ndax. Euh, kii kan la Khalifa Sall. Khalifa nga fee. Mhm. ak xale boobu muy àndal. waaw ñoom Bamba ñoom Bamba Fall ak Barthélémy jaas ñoom. Mhm. ñoo ñoo jóg poñente gi. Mhm. moo loon góor ñi. góor ñi. Eh, rikli day day daal di am. dëgg la ndax am na yooyu alxuraan daa wax ne bu ngeen defee tanaaso. fa tafshalu. waaw bu ngeen xëccoo rek da di tasaaroo. da ngeen di yonjax te bu ngeen tasaaroo mhm. fa tazhaba riihukum seen doole dem mhm. seen doole dem tey tey loolu moo koy war a mais parti boo xam ne ci ci cosaanu réew mi mhm. daanaka mën nga ne mooy bii fi njëkk a juddu wala mu tega ci bopp est-ce que bu fekkoon kenn génnut kenn dimut kenn du xëccoog waaw na nga ni weesu na fii bu yàgg loolu rek kon kenn waxatu ko te kuy kuy dem ku ne doole ji ngay am doole jooju boo ko ci boole woon. Mhm. du ñu àgg ñu naan yéen am ngeen douze pour cent ak am ngeen nangam ma yéen a jël cinquième. Mhm. dëgg la kon kenn du ko jël seen kanam. dëgg la loolu la dëgg la loolu nag dafa aaji woo li alxuraan doon wax ne. wala te man ak man naa xal boo am décrit naa. Mhm. waaw. politique mbàkke. ak cawartee koy def. aw fite koy def. dëgg la ak njàmbaar koy def. ak bëgg lu leer a koy def. ak maandoo koy def. dëgg la dëgg la yii bu ci manqué rek. dem ba yéex. ndeysaan. ndeysaan waaw ku xam démb bi maanaam parti socialiste. Mhm. ak taxawaayu politique ci parti socialiste tey jii du am ak jaaxle lool oustaz buy xool euh, mujjantalu parti bi nga xamante ne daa mel ne doole ji daa wàññeeku ci waxin xaw ma man maa xamul politique am déet. Mhm. Euh, euh, ndax parti boo xamante ne nii moo sos Sénégal bañ amee indépendance. Mhm. dem ba ay élections yi ñu génn nga xam ne dafay bootu wala mu bokk ci ay coalition ndax loolu mooy gu ñuy mooy ci nguur yeek mooy ci parti yi moo koy def wala lan mais a weesu fii nag ci taxawaay. Ah, waaw te dëgg-dëgg nag. xam naa bu ñu fi nekkoon ñoom ne la ah kay. <laughs> bu ñu fi nekkoon ah, <laughs> ah. waaw waaye politique. Mm-hmm. politique. Mm. ci ni ko sunum réew di defee. Mm-hmm. mooy léeg-léeg calcul yi. Mm-hmm. muy yóbbu nit ñi fi ñuy dem. dëgg la dëgg la. dem ak sa doole. Mm. mooy tax nga xam noo toll. waaw loolu dëgg la moom. dafa am élection yu fi amoon waa waa Pire. pur waaw cttt <laughs> ñoom rek ñoo demaloon seen bopp mm-hmm. ba noppi am lañ amoon mm-hmm. te loolu dafa baax ci parti dëgg la li fekk yaa ngi coalisé di boot ak ñu lay boot mm-hmm. doo xam yaay kan dëgg la de xam yaay te nag parti bu nekk pale nag mbàkke boo sañoon parti yëpp ay bootu <laughs> mbaadu waaw ndax ku ci bootuwut man ko indi lëj lëj ak ñol ñol kon lu ne mën nañ ko def ñoom ba nga bootu. Mhm. waaw. neexal la fay la jox la postu nangam nangam yëpp mën nañ ko def. pour nga mhm. Mhm. ndax soo bootoo rek dafa am lu am solo loo xam ne lii ñoom lañ lay def. bootu gi day tax nga nga noppi peut-être. <laughs> waaw. léeg-léeg bootu gi tax nga noppi. yi nga daan dénoncé yi nga daan wax peut-être <laughs> nga ne baax na. waaw nga tàmbalee sëgg bàyyi muy jàll daal. yéeme na. Mm-hmm. parce que li koy waral mooy da nga doon wax nañ defar laa nangam ñu ne la kaay ñu ànd defar ko. Mm-hmm. boo ñëwee mënut a wax ne duñ ko defar. dëgg la waaw loolu la dëgg la. macha allah am na solo lool oustaz taxawaay boobu nga xamante ne itam moom lañ seetlu ñun ñëpp ci parti boobu nga xamante ne mooy parti socialiste jamono jiñ toogee waaw ñoom bàcc siis ñoo ngi leen di nuyu ñoom ñëpp tey ndokkeel soxna Aminata Mbengue Ndiaye kon ci pal gi ah politique ak looloo ànd kon mm-hmm. <laughs> macha allah eh, xam naa ne oustaz buñ ko xoolee ba ca biir it jamono ji nga xam ne ñoom ñi ngi toll ci di tànn ki war a jiite parti bi ak yi nga xam ne moo ci am ci jamono jooju la ki nga xam ne mooy xalifa Sall ab tournéem di wër nag euh, sëriñ si di wër ay am di jàmmam di delloo njukkal ñi nga xamante ne eh, bokkoon nañoo moom yi nga xam ne moo ko daloon nooy jàngate doxantu boobu mu nekkee. waaw gis nga politique. Hmm. ku la gën a mën a dem ci nit ñi. Hmm. la ko. Hmm. Mbàkke. politique mooy cërub ma xej naa ko baax oustaz <laughs> yàgg nañ koo wax de. foofu nag lay feeñe waaw curu ma xejj ma xojj a koy jël waaw waaw maanaam xejj moom yëf yi waaye ñëwoo fa ka teew ba ne xojj moom jël ko très bien waaw waaw bu ma xejj ak ma xojj mhm. ma xojj moo toog mhm. gisuñu ma xejj mhm. ñu jox ko ma xojj jeex na santam la euh, jamono ji nga xamee ne kon politicien baa ngi dem ci nit ñi nit ñi gis la xam la xam sa programme ak sa tërëlin dégg sa langage bi nga yor. Mhm. sénégalais yi mën nañoo jóg. Mhm. defalal loo xam duñ ko defal keneen. dégg la. loolu moo ci moo ci am. moo tax mhm. dem gi am na solo. dégg naa si benn discours bu am solo yi deuxième discours sax laay wax. mooy nañ weesu li weesu. bu ñu fëgg dënn. bu ñu fayonte. ndeysaan te kon ci lay sunu karam. loolu am na solo de. lool lool. loolu de am na solo lool. lool lool. waaw incha allah te itam penc mi ku ci wax loolu. Mhm. léegi te ñu teg la loxo. Mhm. Mhm. ànd ak yow ci la nga xam ne moom ngay woote. dëgg la ma la macha allah. am na solo oustaz jërëjëf xalifa de xam naa génn gi moom amoon na coow. Eh, ci wàllu ndax moo ko sàkkoog dañ koo <laughs> sàkku ci lu dul ndigalam ak dégg nga sax eh, commentaire yi nga xam ne yëpp am na ci eh, ci biir réew meeg yi ci am ci wàllu taxawaay wàllu politique. ànd ak loolu yëpp gis nga ko ndeysaan keroog bi mu demee fa ca Touba. ak euh, xalif général de sañ sëñ Muntaxa euh, waxtaan wu am solo mu ko wax delloo si waat ko lool. maanaam ci net ko nattu yeeg ñi nga xamante ne loolu lépp jaar nañ ci yeeg man damaa xamul ba xam loolu oustaz yow noo koy jàngate hmm. nga Mbàkke. Hmm. dafa am lu ñu tuddee xasra. xasra. xasra. Hmm. mooy pale pale waaw. ñaare jóge palais ñëw kaso li muy am du bari. dëgg la. waaye jóge kaso dem pale hmm. li muy am ëpp. Hmm. Hmm. xam nga président. prison. prisonnier. ñëpp am paix. dëgg la <laughs> loo oustaz nga ne président. président waaw. prison. ak prison. prisonnier. ak prisonnier. ak palais. ak palais ñëpp am paix. waaw ñeent yëpp de paix la tàmbalee. léegi loolu lan lañ jotee ginnaaw bi ñu bokkee ay PN mooy ñaare jóge jóge jóge prison. Mhm. dem palais. Mhm. moo gën a yomb jóge palais ñëw prison. Mhm. te. moo tax ab nattu la ba bu bu la fa yàlla dugalee. dafay def formation ci yow. kaso. def formation ci yow. te. dama mas a seeti sama mbokk sa teeb soo ci yoon wu njëkk na ma jéggal ndeysaan ma jox ko loxo ne ko am ah noo def mu ne ma fii moom hmm. yàgg fee baaxul hmm. waaye ñëw fi baax na <laughs> lii la wax keroog tey waaw mu xëm ndeysaan <laughs> lu la xam loo mooy message boobu dafa doy dafa doy waar hmm. mooy ñëw fi waaw ñëw fi mu ne yàgg fi waaw baaxul ça veut dire que dafa manees na faa jànge lu bari waaw mu ñëw fi nag baax na moo di kaso daf am njàng la. Mhm. Oustaz Mbacké. Mhm, oustaz nga dégg ku ñuy wax euh, Seyd Xutub. waaw ndeysaan. rahmatulah aleyhi. amiin mhm. ba ko waa Égypte dugalee ca kaso ba. mu am fab diir. xam nga dafa bind benn tafsir. tudde ko fii zilal su ma doon firil baat bi. dama naan def ne. maa ngi door a toog. ci keppaarug alxuraan. allahu akbar tey laa leen koy tojal macha allah nga xam ne moom kase bi nooflaay la ci moom waaw léegi am na jot daal bi ñu ko dugalee kase bi am na jotu léegi nag firi alxuraan far daal di koy firi nag bàqara ba naasi allahu akbar est-ce que tudde téere ba fii si alxuraan est-ce que mais gis nga introduction bi mu def ci alfatiha hmm. loolu bu duggutoon kaso àdduna tukki allahu akbar hmm. waaw kon penc mi duñu am loolu hmm. mu liggéey ko ba mu jeex mu di ko toppaat ba du sóoratul xadiid yi mm-hmm. ca lañ ko rey waaw ci lañ ko rey donc kaso mm-hmm. yooyu lay def ci nit ñi defal la formation Mm-hmm. tëggaat la mm-hmm. mooñaat la mm-hmm. bàyyil nga génn ci biti boo génnee génnaale dara nga xam ne kon ku fay dem bu fekkonte ne sax dañoo wàccee niveau bi ba mu doon nit koo xam ne nit ko ordinaire la du leaderu politique du dara kaso ba da koo war a tëggaat waaw ba jikko yam amoon jikko yu baaxul yépp des fa buy génn nekk keneen nit lenn rek moo ci métti mooy buñ jëlee ñu bari ci néeg nag loolu du am waaw hmm. maanaam pokkus bu toll nii waaw ñu def ci ñetti téeméer ñun mbaa fanweer ak juróom. dégg naa dégg naa nag looloo fa am. léegi formation boobu nag dootuñu ko am. sens contraire bi la am léegi. tey waaw loolu lu jar a bàyyi xel la. Mhm. kaso dafa war doon loo xam ne nit ki def cee jaar. Mhm. jaarub ñu ne ko ah, yow kat dangaa def nangam. Mhm. ñu def la fii pour nangam ñu dañ. ñu bàyyi la nga ñibbi. moo tax dañ la war di gaaw di àtte. dafa war di fiix mhm. waaye jël ay nit ñu bari ci benn barab hmm. loolu nag moom day yàq formation bi mhm. est que indi la jënin yeneen jikko yu bokkut yi war na am est-ce que ndeysaan donc hmm. boo xasee génn nag hmm. waa penc mi ñooy wax ni mu génneeg ni mu génne waaw waaw mais génn gi nag waaye bu suñ mbàkkee léebaloon naa lay ñaar ñoo doon goro ji. wax nga dëgg de. gaynde seen goro. ki ko naan sa caay nga ko ko. <laughs> teg te gaynde gi doo nga nekkoon yitte ji. waaw xam <laughs> rey ko caayam kay. <laughs> wax dëgg moo sa nekk daw ñibbi. dëgg la de bokkuñu sax kay. donc ki ne ci kaso bi. Mhm. pexe yi ko génne. Mhm. léegi ñuy werante ci pexe yi ndax dañoo bëgg a werante ba dellowaat ko nag. Mhm. déedéet. waaw abadan abadan ñu ne ci loolu rek la nekk coow. macha allah. aw ba war a def nii ba avocat ko war na jël. Mhm. avocat bi mu defee nangam mbind bi mu bind sax virgule bi mu ko def waru koon def. foofu mhm. waaw. Mhm. moo def demande defu ko woon. waaw moo def lii. waaw du ndax ndax dana mën a continuer nekkaat candidat ndax mënu koo continuer wala nangam. te nun waa Daara. sëñ Mountakha. nun waa Daara. ndeysaan. lii tënk gaa yi ci ay ay loi. du nu tënk noonu. Hmm. lu tax loolu. parce que li ko tax mooy. ñun danoo danoo xam départ zéro. Mhm. arrivé cent. waaw tàmbali nañoo tà maanaam tàmm nañoo départ lu maanaam mu raase nga nga defal lépp sa bopp. jeex na fi nga communité kaso loolu sëriñ bi wax. Mhm. jéggal ko waaw. amul problème amul problème waaw sëriñ bi de moom loolooy loolooy wàllam loolooy wàllam léegi nag bu ne jegal ko mhm. wala baal leen ko mhm. wala diw ñu ne ko ah diw mi kat bu ci doxee nangam mhm. lex kaay dox ko kon génn gi mu génn nii oustaz di dem ci nit ñi di seeti ñi nga xamante ne ay am di jàmmam lañ wala ña ko seet si woon ak ña amoon ak moom kóllëre ak ñam yaakaaru ne doon nañ ko jàppalee ka metti lu li ko dal loolu noonu lu jaadu la bu dëkkut léegi bu ñu de buntu kër buntu nu muy feeñee bu fekkente ne moom boo muy tuut casier judiciaire mën naa yàqu ba dootu nekkati candidat. waaw waaye sëñ Mbakke. Hmm. affaire yi gaa yi yàq defar dong gaa <laughs> ñoo naan yàq nañ sa casier ñooy xëyaat defar ko. ñoom waa nga dëgg de nu leen arrangé rek. yàgg ngaa wax lu waay tubaab de ak ni mu tëddee. ndeysaan. tubaarkàlla tubaarkàlla jërëjëf oustaz jërëjëf ci mi ngi noonu suñum réew de xam naa ne dana xaw a doy waar mhm. ndax itam bala maa tëj bunt boobu oustaz daa mel ne xalifa mi li ñu doon wax xaalis bu baree bari la ca quinze d'avance ga mhm. donte sax quinze d'avance gi ko jàppee moom euh, maire ya ko jiitu woon it nee nañ euh, loola euh, noonu lañ ko mas di doxale mhm. xanaa contexte bi moom da koy doxal ba noppi wuute ak buur aw gisin moo tax ñu jàpp ko loola aw déggin la ku mel ne Karim Wade milliards yu baree baree bari lañ doon wax ne moom lañ koy toppee mu amee la ko réew mi Euh, ak yeneen i milliards yu ñu tudd ba nëga ni ci ñoo xam ne ñu ngi ànd ak état bi donte dara leeragu ci waaye yooyu yëpp oustaz day mujj rek furaas daal di xëddeen buñ ñee jàpp nañ ko après ñu ne baal nañ ko après ñu ne gracier nañ ko wala nangam nañ ko doo xam ne mi lu mu ciy gañe daal finalement xam nga tubaab hmm. mbàkke hmm. ma waxati la ko hmm. lu waay tubaab gis nga buñ ne gracier nañ ko mooy bor banque fi buñ ne amnistie nañ ko mooy baal nañ ko baalaale ko bor bi Hmm. léegi nag baat boobu. Hmm. mboolem ku génn kaso loolu la say bokk bëgg. d'accord ñu am amnistie la. buñ la amnistie nag. waaw mooy baal nañ la xaaj bi ci ba am sax. baalaale la bor baag la bor nga xamante ne set nga wecc léegi. nga xam ne seet nga ba ci léegi. Mhm. léegi nag buñ ne dañ laa dañ laa gracier. waaw moom pen bi lañ baal. mooy li nga doon tëdd baal nañ la ko. Mhm. mais bor bi nag dem yàgg sa bokk ngeen fay ko. d' nga xam ne tey fi mu ne ku mel ne Karim wàdd day mel ne dañoo dañ koo raccital rek bàyyi buum gi. waaye tey am na nu muy baj bajee bañ a yem benn place ñu ne ko contrainte par corps daal di koy. delloowaat ci biir mu jeex ku mel ne xalifa meen noonu. rek ah lii kay oustaz xeetu baal la goo xam ne demal tey déglu samay ndigal la rek. <laughs> loolu lay yëf <laughs> boo amee pexe nag bu ñu defee loolu. Hmm. dangay dem wuti xaalis ñëw jox procureur mu bàyyi la nga dem. Hmm. boo boo gëmee ne yaa ko def liñ lay jiiñ. déedéet c'est-à-dire. Hmm. yaa ko def liñ lay jiiñ. niñ lay jiiñee yaa koy def. xam nga niñ lay jiiñee. Euh, tubaab waaw. du ñëw ne Pape Dieye dafa sàcc junni junni déedéet day sàcc <laughs> euh, ju juróomi téeméer dégg hmm. mu ne Pape Dieye daa sàcc junni te ay mbokkom jooj naa nga ma ki nga ma def lii naa nga ñu coow ba yëg ne sàcc ba mu am na hmm. ñoom loolu la leen hmm. maanaam ñoom duñ buñ lay jiiñ foofu lañ lay jàpp mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. am na loo xam ne dañ la ko may wala ñu jox la ko ne la def ko nga def ko ba noppi nag ca loola nag ñu ne la lu tax nga def ko dëgg la tey waaw gis nga penc bi comme ni laa di wutal genn kees tudde ko kees gu ñuul kees gu ñuul wala kees guy faji soxla <laughs> kees gi kees guy faji soxla la hmm. léegi nag bàyyi la ak moom tey. mbàkk mbàkk doo ci faji soxla. ah bañ a faj. <laughs> léegi nag ñu ne la kees gi boo ci faji soxla. Hmm. du am reçu ki facture. Hmm. waaw def ko li nga ko bëggee. gis nga kees googu. Hmm. kuñ ci bëgg jàpp mën na la ci jàpp. mënoo ci dara. dëgg la parce que comme kees gu faji soxla la. bu sëñ mbakki ñëwee amee soxla nga faj ko ci. waaye mu doo sañ nag ne fajal naa ci sëñ Mbàkke soxlaam. moo tax buñ la bëggee wut si dana la eh. Hmm. waaw gi moom noo ko doxalee. moom koy ni nga ko waxee woon lu waay tubaab rek. lu waay tubaab la. daa ne moo bari yu leerul daal. moo lay bàyyi nga dem waaye saa yu lu bëggee jàppin mën na laa jàpp. rek la. Hmm. rek. ah ñoom di jeexaluñ ci loolu ba nëgëni sax ak coowul dem ci yoon ak coowul tudd ay milliards. Hmm. ndax euh, politicien bii nga xam ne mooy Ousmane Sonko mi jiite Pastef. te ay jamono nga xamante ne yàgg na lool foo ko fekk rek ma ngay wax ay milliards ak euh, euh, nangam leerut nangam leerut mm-hmm. coow coowul milliards ak système bi daal mm-hmm. loolu mooy li gën a bari ci ay discours am bu ko masaana wax nag ñu baree bari dañ naan loolu daa war a leer nañ ko leeral nañ ko leeral nañ ko leeral mm-hmm. jamono ji nag ginnaaw bi ñu bàyyee Xalifa Sàll ci biir ay bis gi dañoo dégg rek ñu ne Ousmane Sonko de dañ koo tàmbalee fexeel ba assemblée nationale sax woote nañ ci àjjuma ji war a daje ñoom député seen biir waxtaane lu jëm ci ay mbiram gi bi mu génnee euh, jano ak journaliste yi ci la waxee ne doyen de siis woo na ko euh, ba déglu na ko ci mbir mi kon daa mel ne euh, léegi tey digganteem ak Mamour Diallo ak milliards yooyu ñuy wax ñu xam fan la wànneen war a mujj ak i gëtam hmm. loolu noo koy jàngate waaw xanaa wax ne hmm. penc mi hmm. Mbàkke suñu àggee ci kaw kaay leen ñu ñu wax ci nàngam ñëpp leen ci séentu dëgg la muy lu yombul nag muy lu yombut mhm. ndax ay milliards a ngi nii diwa ko jël mhm. da lu yomb mhm. raw rawatina téeméeri milliards yu manqué tuuti su fekkee waa jee jël su fekkee jëlut nun waa penc mi soxla nañu wax xam lu leer ndax Ousmane li mu wax nun la ndax Diallo li mu wax nun la ku ci nekk nag wut nga say avocat nun nag sunum penc dañuy laytaal fi ñuy daanu avant ñuy daanu. dëgg la de. cest bu ñu xasee wax ba pare. Hmm. mbàkke hmm. dañuy coow ñaar ñëpp. Hmm. ba fi ne loo mën a wax rek. ñu ne waxoon nañ la ko. maanaam côté bee dañuy coow. côté bii dañuy coow. dëgg la léegi nag fu dëgg gii féete. dëgg la su fekkoon nañu ne selaw ci yëf yi. bu ñu àtteele daañu mën a ñëwee eh, lii Ousmane wax looloo am. wala ñu ne li Ousmane wax li amut. Oustaz kan mooy selaw ñun askan wi wala ñoom ñooñu nga xamante ne ñooy. taxawii ñoom ñoo waroon njëkkee selaw gi. assemblée teg ca selaw ga. ne selaw. waaye xas nañ ko wax ba noppi. waaw fi ne suñu nee. waxul dëgg. ñëpp ne lu ñu leen waxoon. ndeysaan. waaw waaw. léegi bu ñu ne Ousmane wax na dëgg. ñu ne ah. waaw boo la ma waxoon nangam. maanaam fi ne laal taal nañ ko ba pare. ku ci mm-hmm. nekk wax nga ci les say bal. xam nga mm-hmm. mm-hmm. te nag. il faut nga nam ci. te it buñ tàmbulee wax ñu baree ne dañuy lalal pexe diw ndax bu ko yóbbu ca kaso ba maanaam ay farandooy Ousmane Sonko jàpp ne euh, lii lool la wala yoo amee ne daal te atteeguñ buñ demee atte itam yëf yi mën naa compliquer lool. wala état moo fa moo baaxoo di wate taxas ak wet ba tax ku fa jëm rek daal di say mbokk ne leen bu ngeen ci jàpput danaa danaa dugg. waaw mais bu mais buñ ci jàppee itam dana dugg <laughs> moom kay xanaa bañ a fexeel kenn rek waaye <laughs> comme fexeel Mbàkke noo mën a def da nga dugg. ndeysaan xanaa bañ laa fexeel rek. ndeysaan est-ce que. bañ laa fexeel rek. ce que. waaye fi nekk ni moom. Mm, mm. loo ci mën di dégg rek. Mm-hmm. da nga daan dégg ñu ne diw kenn du ko def nangam. Mm-hmm. jékki-jékki ñu def ko. Mm-hmm. kenn du wax nangam jékki-jékki ñu wax ko. rek di ko def. dëgg moom kay xanaa mbir mi mooy. Mm. nu ñaan ñun ñëpp penc mi. doxe doxeen woo xam ne wii li fi nekk day leer. ñu wóolu sunuy avocat. wóolu sunuy àttekat. tëdd nelaw. dëgg la. nga xam ne lu ñëw danañ xam ne liñ ci atte loolooy li am waaye mbàkke penc mu ñu wóoluwut ja attekat ya wóoluwuñ jàngalekat ya wóoluñ fatkat ya penc ma du dem fenn dëgg la ci lu wér mëna ko gën a jaay daan wax wallaay wax nga dëgg oustaz muy lu am solo xam naa nag daa mel ne booy xool réew mi tey xool euh, pili maanaam politique bi ak climat bi nga xam ne moom la amee daa mel ne euh, opposition moom dafiy bëgg a jeex opposition day mel ne eh, ci kanam tuuti moom day daal di doon loo xamante ne du am ndax boo seetloo mm, parti yu mag yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ñoom ak nguur gi ñoo ànd eh, parti yi nga xamante ne ñi nga xam ne ñoo demoon ci élection ya ba élection yi jeexee léegi déggoo ci kenn boo jëlee ku mel ne Idrissa wala nga jël ku mel ne Maître Madické wala ku mel ne professeur Issa Sall ñoom daa mel ne dañuy dallu fi mu ne léegi nag Ousmane mu mel ne Ousmane sonk mooy moo ci des yëngoo ko yëngal oustaz Mm. wala moom itam buñ ko giimloo baa kon réew mi du nekk rek euh, mel ne daal ginaar ah, ginaar wéete wala ndoom rek gësee nu ko neex nga xam ne duñu am opposition du am dara daa mel ne moom mat daa jàppale de ah, euh, ndax opposition baax na ci réew oustaz seet euh, seetlu yi nga ci seetlu de am na ci solo lool <laughs> seetlu yi nga ci seetlu am na solo lool penc mi nag ñooy ñooy tànn léeg-léeg discours politicien hmm. politicien dafa am discours boo xam ne hmm. bi spécial discours la hmm. mu am yooyu boo ko dee boo ko dee discours noonu. Mhm. penc mi daañu ci d'accord ak yow. Mhm. mais day am façon boo xam ne boo ko dee discours ci penc waaw penc mi loolu. du leen jubu daal waaw du leen jubu. du leen jubu dëgg la. looloo yëf yi. dëgg la dëgg la. moo tax. Mhm. affaire bu bu doy waar la. te aajowoo ay conseil ci wàllu communication en communication. su ko defee jàmm na ñooy. dëgg la ndax euh, gone googu lu ne mën na ko am. <laughs> Hmm. waaw loolu mën na ko am. Mhm. xaw ma nag fu muy mujj ak nu muy def. Mhm. waaye daal loolu mën na ko am. mais discours bi. Mhm. jar na jar na. boo ko doon conseil ci communication am da ngay wax ak moom. waaw loo koy wax oustaz. li ma ko wax mooy sunu penc. discours bi nga xam ne moom la ñu taamu. te bëgg ko. dafa aajowoo yii ak yëg yi yoo xam ne mënu su ko wax ci kaw. d'accord. yooyu. discours bu mu am rek. day jàll automatiquement te day am. Mm-hmm. te day am jeexantal. est-ce que waaw Oustaz ni politique gu réew mi tëddee ak nii ngay doxee jaaxal na ma yow membre conseil économique social nga. Mm-hmm. ba noppi euh, bu ñu xëyee léegi site internet yeeg yu euh, seen yi dañuy daal di bind ne Oustaz Sall mi ngi jox Ousmane Sonko ay conseil de loolu noo koy layale. lu deesu ko jéem layal sax. ah bàyyi noonu rek. waaw <laughs> deesu ko jéem a layal. xanaa yow nekkoo kuy conseil président. Ah. ci ci conseil économique. nun laa war a conseiller Ousmane Ousmane Sonko nun laa war a conseiller Idrissa ah bon <laughs> waaw waaw président xam na ko sax est-ce que est-ce que ah loolu de liberté la parce que ab sëriñ mm-hmm. ci parti mm-hmm. parti yëpp xaj nañ ci ab sëriñ mm-hmm. ab xajul ci parti xajul ci mbooloo mbooloo yëpp na xaj nañ ci sëriñ looloo yëf yi kon nun lin yor comme diine la alquran la ñëpp ci war a gis seen bopp masha allah président ak ñu ko opposé mm-hmm. ña nekkul ca parti yaag mm-hmm. ca ña ci daayéer yaag mm-hmm. ca tariixa yaag ñëpp cor gi seen bopp loolu moo tax war war nañ ko mën a conseil moom it macha allah torkal <laughs> waaw <laughs> am na solo oustaz kon daal conseil baa ngi jëm ci wàllu communication ak wàllu wax waaw ndax loolu daa mel ne li muy mel ne lu ñàkk-ñàkk solo léeg-léeg wax defar lu bari léeg-léeg mu yàq lu bari barki démb dañ na ko assemblée woo nañ la waaw wuy bi moo gën ñàkk wuy ak lu fa mën a xew wuy jigi waaw. mais hmm. oustaz assemblée boo xamante ni ñoom it nañ ma baal waaye daanaka. ñu ngi noonu rek da ngay laajum réew. Hmm. bëgg boo ci jotee tëral ay loi <laughs> waaw nga dëgg de. bëgg boo ci jotee ñu sàmmal la constitution bi. Hmm. kon lu métti métti li la constitution bi sant da koy def. waaw da ngay da ngay leble bor yoo xam ne bu ñu la ko fayee. waaw mu xaw a tane. que boo ne léegi ak assemblée dañuy daje. mais dañuy théâtre du dem. te yow député nga ca foofa. Hmm. Hmm. ndeysaan loolu benn benn njuum njuumte lay doon. wax nga dëgg de nee nañ waa ji de baayam daa nekk ab sëriñ. waaw am taalibe baayam bu mën a joxe addiya. waaw mu defa dem naan ko xaalis bi ngay jox góor gi daa bari loo ko war a bàyyi ndax lii moom ak yàq la rek daanaka amul benn njëriñ. baax na yàlla dogal baayam faatu mu toog place ba nag <laughs> léegi war a xaar rek ñu di ko jox. <laughs> pour nga dégg ci ne léeg-léeg nit di xeex maanaam daal ku toog ci ker doo gor garab yi. lu jar a bàyyi xel la. Hmm. lu jar a bàyyi xel la. ñii fi nekk fi nekk nii ci te yor nguur gi. Hmm. bu manifestement saana jot nga génn di def lu la naqari. Hmm. bi nga ñëwee ba toog yow tam. affaire hmm. boobu. bu ñëwee doo ko mën a gérer. dëgg la. loolu rek la ndeysaan macha allah yal na jàmm am ci réew mi allahumma amiin amiin jàmm daal la jigee bu ko defee nañ dem moom Mamour moomu ndax 94 milliards kat kuñ ko tuumaal du xaalis bu ndaw déedéet warees na koo i ne da waxte dese woon ci ami preuve mu tegu ci ay dëggandeem mhm. ñu xool nan lañ koy maslaa rek ba jàmm am teñ bañ a tëj kenn <laughs> gannaaw kuñ tëjit après dañ lay baal ak yooyu rek kuñ fi tëjit ñooy wàccaat ci mbedd mi di coow buñ tëj kenn waaw buñ tëj kenn loolu am na solo ndax calcul politique bi moom metti na lool te gaa yaa ngi ci rek. dëgg la oustaz jërëjëf xam naa damay daal di génn foofu ci politique bi jaar ci sport bi door a dem ci leneen. Sénégal de tey sa gaa yi ña nga doon football ak Brésil. waaw <laughs> man nag yéex naa ko yëg sax waaye damaa génn ci bëccëg gis euh, buntu bitig yeeg yooyu nit ñi taxaw fees dell télé yi. waaw ndekete Sénégal ak Brésil ñooy football waa ñoom lu ñu doon football oustaz. waaw euh, équipe bi mën ci àdduna si. Mm-hmm. moo daan dajeeg équipe bi ñu ne moo man ci Afrique. Hmm. ah d' accord ah loolu kat événement la. waaw lool événement la sunu équipe nee nañ Afrique. Hmm. man hmm. actuellement ñooy un. ndeysaan. Ah, Brésil moom ci ci monde. gis nga seen seen étoile yooyu ci seen mbagg yi. xaw ma juróom la xaw ma. ci seen mayo yi. ñaar ñu ñoo daje. bari nañu ay biddiw de. nga xam ne bu ñu dooroon deux zéro it. waaw dañ naan c' est normal. waaw ah waaw ndeysaan moo tax moo tax biñ ñiilee mu mel ne dañoo def jaloore waaw moo tax ñu lonk ñu benn hmm. les si mitan ñu lonk leen benn <laughs> ndeysaan booy wax ci sport bi ñaar ñaari occasion yu jàkkaarloo waaw booy wax ci sport bi langage sax ñoom Malick Ndiaye bu ñu nekkee stade langage bo <laughs> langage boobu ngay yor bu ñu nekkee stade ba toog ci seen tribune yooyu eh, ñoom ñoo ñoo waajee ca Walfadjri ay lonk la ñuy wax ak ñu ñu dóor ko patt beeg <laughs> tubaarkàlla macha allah xam nga xam nga. Hmm. dañoo bëgg lépp. Hmm. nekk ci daara ji. wallaay ñu sénégaliser ko. dëgg la di dëgg la de. dëgg dëgg la oustaz. donc loolu mooy. Hmm. d'accord naa lool. léegi nag. <laughs> footballé ko Sénégal footballé wuñ ko Brésil. dañoo dem ci réewum jàmbur football footballé ko. tey. bi ñu ñibbisee nag. fi ne canal boo jàpp ci canal canal canal yi kii. ña ngi koy ña ngay bi. ndax match bu ab bu jaar la waaw ndax gars yi bëri nañ bal bi mm-hmm. dugal nañ leen ñu dugal mm-hmm. waaw daa mel ne tey ay ñaari ñaari ñaari occasion yu daa ne tey tey ay gaynde dëgg lañu waaye ñoom damaa xamul lu tax fi ñu leen soxlaa duñ fa nekk gaynde bu ñu ñëwee ci yi di di gaynde gaynde lu déedéet xam nga sëñ Mbàkke mm. suñu penc mm-hmm. ni ñuy santage seen nit boo duggee ci terrain doo def dara ci ñun la <laughs> ci ñun la kon waaw <laughs> boo duggee ci terrain bi. Hmm. léeg-léeg gis koo xam ne ci équipe am nekk. Hmm. feuille flanc lay def. Hmm. mu ñëw équipe nationale. waaw mel mel ni Messi Messi mu dem Argentine. Argentine ndeysaan. daa mel ni kon ya daje ca euh, ca club ba daa dajewul ci équipe nationale bi. léeg-léeg mu am ci loolu. léeg-léeg liñ lay sëf ci santaas mooy. wax tax waaw gis nga Mbàkke supporter. Pape Dieye de def na supporter jég tekkul dara. waaw. waaw ndekki supporter li muy def ci ci ci joueur. waaw kenn xamu ko. ah da ciy def dara lu mel nan lu mel nan la ci def oustaz. supporter. Hmm. dégguñu la tudd leen dou douzième gaynde. douzième gaynde waaw onze ci terrain bi. waaw ñoom ñoo douzième bi. waaw. kon li gars yi def la ñuy def. Hmm. <laughs> Hmm. donc yooyu moo taxit. bu fekkee dañ laa sëf yenn sëf yi mhm. journaux yi wax ci yow mhm. ñuy wax wax ci yow mhm. yenn wax yi day doon loo xam ne boo ci terrain bi dëgaj wax yëpp nekk ci sa kaw mbagg yi dëgg la dëgg la doo daw doo dugal dëgg la dëgg la doo daw doo dugal <laughs> macha allah waaw tubarkal loolu lay yëfi tubarkal kon de ña nga ca di nam na bi rek ci ca di nam na bi a final mhm. feeca ah, bi am Thiès mu ngoog man de bu ngoonee ba may xool sama émission bi ci bi bu jàllul rek ma ma ne kon daa am masque yu xew ndekete loolu la ñoom lu ñu football ñoom it benn tournoi la bu ñu tuddee il faut la ma nan ah waaw ci la ñu nekk ndeysaan léegi nag duma nanu démb mhm. Mali mhm. ba war a final ak Ghana ah loolu kat baax na waaw moo ne ñun ñu ngi góorgóorlu ci football bi de oustaz ah waaw moom te te gone yi sax doon nañ bëriñ bëriñ bu jaar ci yoon. xanaa nag léegi li ci def nag mooy ñu war a tabax nag ay état def wàllam nag moom it. loolu la jéem a defar ay état yu baax. motivé waat xale yi yooyu gannaaw mënuñu koo ñàkk defi. dañoo bëgg football di ñu teral. Mhm. te duñ ko teral. Ah, loolu de moom ay caaxaan la. xoolal Sénégal ñaata région la. waaw ah, moom xanaa 14 fi mu ne. benn terrain képp laa fi xam bu ñu hmm. mën a footballé. waaw fi ne Thiès la dem Oustaz. jeex stade joor jeex capital bi amul benn terrain bu ñu mën a fubale. fii nii national waaw xaw ma ko fi de. doy na waar de. stade Demba Diop gi bu ma fa jaaree sama yaram day daw. billaahi ministre des sports moom laa xamul rek sax moom lan mooy lan mooy ab yëngatoom dëgg-dëgg. léegi. waaw parce que itam loolu oustaz. Euh, benn état defar ko wala ministre bi waroon nañ ko cee dégg. di yëg ay effort yu muy def ndax loolu taxaw. ndax moom mooy moom mooy buntu état ci sport au Sénégal. moo taxit sunu championnat yi bu buy daw nii. Hmm. doo seen ci terrain bu juróomi nit ndax noonu dañ dul lebal football bi dara. voilà bëgg bu jotee mu ñu ne ko fay nu moo taxit. waaw moo taxit terrain yi amuñuy mm-hmm. terrain. Mm-hmm. stade Demba Diop yi fi ne ndigg war naa mm-hmm. fekk tabarkal bu mag bii ci Yoff. Grand Yoff. ah. ko wër léegi. bëgg la wallaay wallaay. kenn léeg-léeg ñu am match ñu ne fii diwun ko fi foofu daal kenn xamul suñu problème rek région yi demal demal demal Mbàkke sax stade ba far ña ngi koy ña koy toj jeex kenn kenn xamul lii léegi nag bëgg nag hmm. bu ñu demee final hmm. ñoog Algérie hmm. ñu dóor ko 2-0 dëgg la ah du mën a demee noonu du mën a demee noonu da ngay lebal yëf yi yëf yi fay la ñun dafa mel ne oustaz dañuy bëgg mel ne kuy sàqami te si xoo dara loolu daa mel ne day day am daal ndax tey da ngay gis tey euh, tey nii dëkk bi mel tëli yi ni mu ni mel ak suuf nga xam ne da ngay jaar ci tëli doo gis godoron bi ndax suuf si te am na am na am am na fi ay ministre am fi ay agence euh, am fi ay jumtukaay yoo xam ne moo war a toppatoo loolu nga ñëw ci wàllu mbay mi noonu nga ñëw ci wàllu loo jël rek dafa mel ne ñu ko dénk sérieux wuñ ci niñ ci war a sérieux biir jëppal waaw am na fi tëli yoo xam ne soixante dix mu ñëw dakaar waaw na ma ko fekkoon waaw la mel ba démb am na ci suñu koñ bi ñu nekk nii. Hmm. am na fii fu mu wax ne ko danaa fa mës a xëy. Hmm. Hmm. congaan kaaraange yoon. am na foo xam ne fii laa tax ne man man mii moom danaa fa mës a. danga xëy te kat li ci am solo li ci doy waar oustaz mooy léeg-léeg am ay tëli yoo xam ne ci biir capital bi la fay xëy di jaar kenn xamul nu mu toll ñu di ko romb yi dama ko ñëw rek. est-ce que seetlu nga leen. waaw. ñun fii ci ci Dakar gii. ñëpp dañuy xëy dugg biir Dakar. waaw. bu doonee ñëpp xëy. ñëpp xëy génn gont loolu loo ci wax dafa normalul wala daa am lu ñu ci war def lan la ñu waroon def xëy di dem Dakar. Hmm. nañ seet ñoom lu ñuy wuti. Hmm. li tax ñëpp rek xëy wuti fenn. waaw waaw loolu ñu fay wuti nañ ko génne. waaw. Hmm. te bañ ko yemale jam ñaaju. waaw wërta doon mbir moo xam ne bala koo kenn am rek daa dem ba foofa. ñu jël lépp dajale ko fenn. am na loo xam ne fi ne Jurbel moo ci gën a yaay. dëgg la ci lu wér dañ ko yóbbu Jurbel ci lu wér jàmm na ñooy. am na ministère boo xam ne bii fi ne yaa ngi tudd dëkk boo xam ne fi ne ña fa faatu woon 78 bu ñu dekki woon mën nañoo dox ba seen kër dugg fa puno yi ñu sampoon ca mbedd yaag peinture sax sensé wul jurbel moom jurbel moom bàyyil jurbel te jël beneen dëkk <laughs> ah jurbel kay oustaz bu ko fi tudd léegi li ñuy tuddee culture mhm. Mhm. lu muy def Dakar na dem na dem Louga artistes yi dem fa mun yàq daal di créer lu am solo soxlaa ci di xëy nga dem foofa mhm. mbay mi nañ ko yóbbu Saalum du dëgg. mais ñun lépp lañ jël biir Dakar bu ñu xëyee ñun ñëpp ila dakaar wallaay sallaaw fi ne si autoroute à péage. wallaay wallaay ndeysaan. autoroute non à bu wàcc jotee bu wàcc jotee ñi wàcce seen i bureau. dix-sept heures àgg seen kër vingt heures. waaw maanaam sa diggante diggante bu gàtt nga def ci ay kilomètres. boo xoolee wereen bi noonu la mel corniche bi noonu lay feese tëli yi noonu lay feese ñëpp di maj maj rek fi ne xëy doxi benn yitte kenn mënu ko Dakar dëgg la fi mu ne ñu dëkk fu xaw a sore ay Kër Masaara yooyu sax am na xam ne bu ñu xëy bu ñu la la ñuy jóg wala leen sax julli suba ci biir kaar bi la lay fekk ndax lu ko mooy doo mën a doo mën a respecté heure bi nga war a dugg sa biir dama enregistré ba noppi mhm. tey fii mhm. am ku may seeti Kër Masaara mhm. dégg nga ñu woo ma ne ma soxna Ndag Guèye yaa dafa génn àdduna ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm may dem fu ñu hmm. ñu ne ma uh, uh, Grand Yoff CTO waaw Mbàkke hmm. gis nga ma jógoon Kër Massar ñëw CTO waaw midi du tax ma agsi hmm. ndax embouteillage waaw doo ñëw ban ban nga bantali ngay jaar moom lay xalaatal nii sax waaye <laughs> doo ko mën a am ma leen wax fekkale ma cene ba nga xam ne jóg kër jóge Kër Massar dem xaari rob bi cene ba moo la gën a yomb jóge jóge Kër Massar ñëw ci levée de corps bi imagine loolu maa leen fa jiitu dëgg la dëgg la yàlla na yàlla yërëm ah, ah, waa léegi avec ça oustaz nag ñu ne dañoo war a dem ñun te yeneen réew yi ñoom weesu nañ foofu ñun ñun lii rek mënuñ koo rek laaw maa ngi dégg président sànq moo woote ci ngoon waaw di wax euh, élus locaux yi xawma ko tuddee ci ñoom seen ñooñu waaw waaye fi ne sëñ Mbàkke loolu hmm. dañuy wax bàyyiwaat rek hmm, hmm, gis nga fii nu nekk nii bu fekkoon man lañ fal maire bi waaw waaw Sacré Cœur yooyu yi. Mhm. na na ma na ma. ki Barthélemy na ma Barthélemy baal <laughs> dégg mhm. te état bi yëg ne ki ñu fal maire. Mhm. même su bokkul ci. pouvoir bi. waaw daa war a liggéey. waaw looloo da cee am solo nag. xënti oto yi ma jëli leen fi. dégg nga xënt yi mooy oto yu màgget yi taxaw ci buntu kër màgget yi oto yi ñu def souvenir sama oto maam biñ gaaree baase ko ci su waaye lal te war faa lal mhm. ma fekk la faak lu war a génn mhm. yooyu bit yooyu bu génnee mhm. buñ ko defee tëli yi léegi ti sa kër kër na cocc dëgg la dëgg la oustaz yàlla nu yàlla yërëm amin amin yaa rabbal alamin waaye fi neen mu daal man de xaw ma lu waaye daal mu ngi rek xanaa na ma Cheikh Gueye Baal moog Bartli bi ñoom ñu nekk si <laughs> loolu kay kenn du ko gis wallaay waxe daal doy na kéemaan wallaay wallaay ndeysaan donc réew yi àdduna si yëpp nag loolu leen defar mm-hmm. mooy gis nga ku def dara mm-hmm. dañ lay sanctionné lañ lay sanctionné dem ci keesu buur mm-hmm. Mbàkke nga buñ ma buñ ma joxoon ministre bu yor wàllu wàllu woowu wàllu oto yeeg transport xaw lan waaw gis nga Pape Dieye bi door a am fii permis di tàmbalee dawal gis nga assurance bi ma koy daggaloo quatre cent mille lay doon ndax danger la ci nit ñi. ndax moom day door a tàmbalee dawal. ndax moom day door a tàmbalee dawal. waaw daa war a bu baax de. mu ngoog. Mhm. léegi ki nga xam ne daw bu fekkee Pape Dieye dawal na lu mat at nag te laalul kenn kenn lalu ko. ma mhm. dindi cent mille ya. Mhm. su ko defaatee ma dindi cent mille. fu ñu jëm maa ngi moom. ah day dem ba mu jàgg mu oyof lool. léegi loolu muy fay nag bu mu dugg ci keesu buur ñu defaree ko suñu tali. jàmm na ñooy. mais ñun fi ne daal yàlla na yàlla yërëm. <laughs> amiin yaa sax léegi te ni ñu jébbale. jërëjëf oustaz jërëjëf ci tomb bu am solo boobu ak fi ñu ci jaar fépp rek day tegtale ne war nañoo mën a góor góorgóorlu ndax ñu jëm ca kanam ndax jëm ca kanam baax na lool macha allah beneen bi ci topp oustaz ñoo ngi ci weeru octobre mm-hmm. euh, ñaare sax ci wàllu santé ak euh, mbirum jigéen ñi dañuy wax octobre rose la ñuy wax mm-hmm. nee nañ daal mooy weer wi nga xam dañ koo jagleel xeex feebar boobu nga xam ne mooy feebaru cancer. Euh, di tawat joo xamante ne day dale waaye bari lool lu muy dal jigéen ñi ak yi nga xam ne moo ci aju. Euh, léegi nag moom daa am coow lool te am média média bu baax a baax a baax moom jëmmi tawat jooju noo koy jàngatee yow. xam nga jigéen. Hmm. yàlla def ko sàkk. Hmm. mu war di ëmb. Hmm. di wësin. di nàmpal. bu ko deful day cancer. dëgg la moo tax mu barikat mbàkke hmm. jigéen ñaal daf ko bind hmm. mu war di ëmb hmm. di wasin di boot di nàmpal bu ko defut jël sa oto bi rek nga dem jur bi la nga gaara ko ci buntu kër ga waaw <laughs> ba déwén nga ñëw taal ko du tàkk de dem kon ëmb beeg yooyu daa bokk ci li ci kii waaw dégg nga ñu naan cancer col utérus col utérus la cancer nangam ak ki nangam yooyu lu la ko waral rek wallaay <laughs> loolu dong la ko du leen. Mhm. sa oto bi daal suñu mbàkk boo gaaroon seen buntu kër gee. Mhm. ba déwén boo ñëwee boo taal du tàkk. Mhm. boo tourné pundi du tourné. maa la ko wax. dëgg la. loolu dong la nag. dëgg la de penc mi ñooy wax ne maye gi daa teel. dégg nga na gone yi def nangam dox seen digganteeg ñu maye leen. dégg euh, jigéen joo ñëw bokkoo bëgg yaayam ne la bokk leen aw sant. wallaay. Ah? wallaay li ngay liggéey neexuma. papa ji ne la ko may tey ko may ëllëg. Mhm. léegi lépp ne kàkk. Mhm. léegi nag feebar yooyu feebar yooyu day dal jigéen nag. dëgg la dëgg la. ji nàmpal loolu daawu ko dal. Mhm. laaj ko noogay ak ñam boot ñëpp. macha allah <laughs> am na solo jërëjëf ndax tawat la joo xam ne dama daan wax ne bu njëkk li ñu ko daan dégg bëriwut. léeg-léeg itam muy loo xamante ne day xewee Europe. te nekkagul suñu feebar waaye nag ñu jël ko ñun tuur ñu ko suñu média ak suñu wax ba mujj mel ne moo daj kapp àdduna. tubaab bi moo la koy wax dama mm. def naan la. Mm. Mbàkke nga ne ko am ah, na sa bopp day métti nga ne ko man <laughs> mu ne ah sa bopp day métti nga ne ko man kay dara dul mu ne ah kay da nga koo yëgugud waaye mi ngi métti <laughs> mu yéen moo ko yow moo ko yow ba nga ne pourtant mi ngi métti muy nañ ko faji est-ce que moo bari caaxaan amin yaa rabbal alamin jërëjëf oustaz jërëjëf ci tomb boobu bésub tey bi itam mooy journée bi nga xamante ne mooy journée mondiale bi nga xam ne moom la ñuy tuddee personnes âgées yi maanaam mag ñi ñoom lañ ko jagleel daal ndax ñi ngi leen di toppatoo oustaz ni mu ware xëy na ci seen wàllum paj ndax mag ñi ñu ngi leen di bàyyi xel ci kër yi ndax léeg nga dem ci kër kat gis mag moo xam ne daa magal lool toppatoo boppam yombatu ko xëy na ci am néegam ci ak cetam ci taxawaayam defe naa loolu itam suñum réew loolu warul woon a nekk feebaram ndaxte ñun oustaz yàgg nañoo fonk mag waaye yeneen tawat yi jóge bitim réew di ñëw la ñoo koy jàngate léegi daal suñu mag hmm. nga sëñ Mbàkke ku ku hmm. ci ci liggéeyu tubaab hmm. retraite bi daf lay yokkal sa dund gi fukki at ak ñett. ndeysaan. nga gën a màggat. Mm-hmm. gën a jaaxle. ndeysaan buñ la jéggu toppatoo wuñ la. Mm-hmm. dootoo dem fenn. dëgg la. rek la. Mm-hmm. Euh, ñuy bëgg cee roy tubaab bi nag. ndax tubaab bi moom yaayam doyewu ko dara. doyewut yaayam dara. déedéet. moo tax ko sa yaay màgg da nga dem ci ñàkk ba dénkaane ko bu déwénee nga ñëw tuddee ko fête des mères. ndeysaan. moo tax ñoom ñuy jël ay bis di ko jagleel mag ñi ndax di leen kiyaat ak yooyu waaye ñun bis yëpp lañ war a jagleel mag ñi ñun voilà mhm. waxada rabbuka mm. allah taabudu illa iya bu billaa dina ihsaan ñu doon doxal wallaay ndeysaan buñ ko doxalee nag du jar ñu naan bis bi mag ña ko moom ak bis ba la xale ya ko moom dëgg la macha allah loolu am na solo jërëjëf oustaz jërëjëf mbokk yi xam naa fukki minutes yi ci des ma ci jéema dugg ci laaj yi nga xam ne moom la mbokk yi bind ci email bi di albidayatu arobas yahoo point fr bu leen toxal si nag déglu albidayatu arobas yahoo point fr bi 23 heures jotee ba teg cinquante minutes Mm-hmm. jërëjëf Oustaz mbokk mi nee na moom daal ginnaaw bi mu la nuyoo siyaare mi ngi rafetlu jotaay bi nee na day laaj ki nga xamante ne dafa bëgg soxna euh, te amul sansu tase ak ku ko doy ci jikko mm-hmm. nee na moom lan la war a def li mu war a def mooy tànn ku tane mm-hmm. defar ko ñu ànd ku tane waaw tànn ku ko ñu ànd loolu rek lay lay def. Mm-hmm. mooy sukkuran ci laajam bi. jërëjëf oustaz ñu ngi koy jaajëfal te rafetlu jotaay bi moo Modou Boussa njaay Suisse moom andiwut ab laaj waaye dafa nuyoo rek ak rafet lu jotaay bi. ñoo baax a baax di waa Suisse yëpp tabaarakallaahu mu ñaan yàlla mu ñu am xaalis ba dénkaane ko comme ñëpp. <laughs> ah Suisse barabu dénkaane kaay xaalis. ah seen àdduna si. <laughs> mbaa du ñoom la ñu wóolu. <laughs> macha allah ñu ngi koy nuyu suñu Modou Boussa tubarkalla eh, ki ci topp mooy Babacar kan eh, gannaaw bi mu la nuyoo rafetlu jotaay bi nee moom daal heure liggéeyam ak waxtu julli moo ko def problème muy laaj ndax nee na euh, ñaare bu demee liggéeyi quatorze heures vingt trois heures lay wàcc nga xam ne kon tàkkusaan timis ak gee yépp da koy fekk ci barabu liggéeyukaay ba mu doon laaj nag ndax léegi mën na bu jullee julleetee tisbaar ci quatorze heures mu boole kook tàkkusaan door a liggéeyi wala nan lay def waaw jërëjëf ci laajam bu am solo boobu xam nga fi ne suñu suñu waxtu euh, tisbaar fii ci Dakar douze heures cinquante la douze heures cinquante sept. waaw kon douze heures cinquante sept yooyu su jotee. Mhm. bu ci tegee dix minutes mën naa julli tisbaar julli bu fekkee ngànt am. Mhm. Mhm. dégg nga. timis ak gee timis bu fekkee dix huit heures la. gee dem ba vingt heures une su boobaa bu wàccee. mën naa julli timis ak gee. waaw. te timis ak gee ñoom professeur Rawane dem wax nañu ne yàlla na ko yàlla yokk wér. dem na ba vingt trois heures. muxtaar bi. mbir yi da ndekete jafewut lool. déedéet jafewut. am na taw fii de mais boo gisee borom lax daruri di wax di jàngale waxtu julli yi mm-hmm. naan muxtaar ak daruri yi mm-hmm. yooyu rek ko ko waral mm-hmm. boo leen xamee rek man ngaa bañ a dugg ci yooyu dëgg la bu ngant amee da xam kañ laa julli subaar ak takkusaan kañ laa julli mu ak gee waaw ko sukran ci laajam bu am solo macha allah jërëjëf oustaz ci tontu loo am solo loolu ki ci topp mooy màgget càndum ñu ngi koy nuyu nee na moom day laaj góor gi nga xam ne dafa am jabar joo xamante ne ab tubaab la. boo xam ne gëmut yàlla noonu la ko bindee. mu ne ndax euh, sëye boobu daal baax na wala ku góor ki baa du ci am yenn jafe-jafe. waaw kuy takk jabar daal mbàkke. Mhm. dañoo bëgg nga takk mu'mina. Mhm. soo ko amut nga takk nasaraaniya wala yahudiya. Mhm. bu amul ñetti ñi nag nga toog. waaye ku gëmul yàlla. gëmul yonent bi xamul yooyu mhm. kooku kooku ku gëmul dara la mhm. bukk ci kitaab mhm. kooku kenn du ko takk waaw dëgganut wa shukran jërëjëf dégg nañ lool ci tontu li Ousmane Daabo moo ci topp moom indi na ab laajam laaj bi tax da koo delloo nee na ca weeru tam xarit wañ génn ak bisu tam xarit bi nee da caa déggoon ay waxtaan mu bëgg daal ginnaaw ba détails yaag yañ ca doon faram-fàcc yépp jàllee mu bëgg xam bisu tam xarit moom ab jullit lan la ci war def da cee war a mer wala ndax da cee war a kontaan dëgg-dëgg lan mooy taxawaayu jullit ci bisu tamxarit jërëjëf wóoru cee mer mm-hmm. daf ci war a kontaan mm-hmm. ndax la ca nekk ci ay victoire mm-hmm. dafa ëpp la ca nekk ci ay défaite su fekkee ne dañu ne imaam Xuseyn lañ ca lañ ca rey ñu mer ca kon maamam mi faatu mooy sallallahu alayhi wa sallam def ñun suñu meree nenn ci génn àdduna ak sët Mm-hmm. maam ji nu ñu war a mel ci moom mbaa bàyyi ja. waaw yéeme te bu ñu toppee loolu ak nu tukki. Mm-hmm. loolu rek la. Mm-hmm. te nag comme yonent bi daa fekk victoire am ca mu sant ñeene nañ ko woor daal di koy woor su boobaa ñoom ñun ñu toppandoo ko ci loolu mu def mooy gën indi fi leen lu mu defutoon mooy sukkuraan ci laaj ba am solo. macha allah jërëjëf oustaz ci tontu lu am solo luy ak noonu nga ko faram-fàccee kii suñu jigéen ba la ci Amérique la soxna Ndeye kamara dafa jaar ci fenêtre bi ndax léeg-léeg bu ñu ubbee téléphone bi nee na day jafe ci ñoom te mbokk mi da koo yóbbante ab laaj bu sañoon ñu laajal ko ko. Euh, ñu may ko loolu oustaz nee na daal kii day door a takk soxna wala euh, ñaar ñu ñuy door a boole mu bëgg nga dénk leen nee na loo leen di dénk li ma leen dénk ñoom ñaar mooy hmm. jëkkër ak jabar hmm. ku góor ki hmm. na mën a jëllale mën a muñ hmm. am jom ak diine hmm. waaw ku jigéen ki na mën a encaisser mën a toppe mën a jëlale te am diine jàmm ne ñooy bu ñu ko defee ñoom ñaar daañ mën a nekk ci say bi kenn du yàdd sa morom kenn du song sa morom bu ci amee ku ñàkk jom rek àdduna tukki nag waaye ba àdduna tukki nag jëkkër ju ñàkk jom ci yées hmm. moo tax nga dégg isaa ataakum man tardaw na diinahu yuntu bi la ceeg wa xaw hmm. wa xuluqahu foofu mooy na am jom rek wa hmm. sukran ci laaj bi macha allah jërëjëf kon daal am diine ak jom bu ko góor amee man naa doon jëkkër yi kon rek mu jeex tak jigéen ji moom euh, moo ëpple ay kii yu koy xaar waaw wa allah jërëjëf kii de moom dafa indiwut aw turam ñu ngi koy jaajëfal waaye nee na mi ngi ndokkeel bu baax oustaz Alioune Mbaye ci waxtaanu yonent yi rawatina yonent yàlla Ibrahim mhm. nee na ni mu ko faram-fàccee ak ni mu ko waxtaanee sedd na xolam lool jot bi ndaw ñoo ngi wuutu Oustaz alin mbay mhm. di ko fay nuyoo di ko jaajëfal mhm. incha allah tubaarkàlla jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax moom itam jërëjëf Oustaz Mbaye xëy na nelawagut <laughs> boo moytu day door a jóge daayira eh, mbokk mi nee na subhaanallaahi wa bihamdihi moom la bëgg nga ñëwal ko ci tekkil ko ko lan lay tekki ak ndax dañ koo war a wérd wala déet jërëjëf subhaanallaahi wa bihamdi kuy julli moo koy wax mhm. eh, ak subhaanallaahi azim ak subhaan rabbil ala mhm. léegi kuy julli day sàbbaal yàlla loolu ak sàbbaal la mhm. bu dee suba subhanallah bi bi xam di nag yonti moo wax ne boo ci waxee benn mhm. li nga wax fees na asamaan ak suuf mhm. maanaam poids bu diis a diis ngay am léegi nag ndax dañ koy toog di ko def ba mu nekk ab lim euh, mën nañ ko bañ a def ab lim waaye bu suñu xel nekkee rek ñu wax ko wa sukkuran jërëjëf kon daal saa yu nit saa yu neexee nit ki mën na koo wax rek mën na koo wax macha allah ndax bàkk yàlla la tagg ko jërëjëf mm. kii mi ngi tudd Aliou Ngom nee na mi ngi lay nuyu bu baax di rafetlu waxtaan yi te di la jaajëfal. maa ngi koy delloo nuyoo di ko fay nuyoo di ko jaajëfal euh, wa shukran. jërëjëf da baax kan moo ci topp da baax de moom nee na musique la bëgg nga wax ko daal déglu gu ko nit déglu ndax dafa am dafa araam wala déet. waaw musique de sëñ Mbàkke hmm. bu nit laajee acte bi dañ koy laajaat lan mooy musique. Hmm. loolu lay question bi. Hmm. bu ne musique mooy. ñii li ñuy def ci tele yi mhm. sol lu baaxul di tëgg ñëpp yi tabaka dalaka fecc génn seen awra su fekkee lu la musique baaxul mhm. bu fekkee musique mooy mhm. la ñoom Samba Jabar daan def ak ñoom Ali ak ñooñu toog di xalam di di way ay way su fekkee lu lay musique ñu ne baax na léegi nag question bi kon mooy lan mooy musique rek dëgg la waaw dëgg la lan mooy musique bu dee lee ñu ne la baaxul bu dee kinning kinning bu dee kinning la yeeg lacax lacax yi ñu def daal baaxul baaxul bu dee bu dee li li ma mujj wax nag hmm. nga xam ne mooy li ñu tuddee musique traditionnelle waaw ay mag ñu toog di ci joxe message ak jàngale waaw hmm, boobu baax na boobu baax na waaw mooy hmm. sukkuraan jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal mbokk mi moom nee na ñu nëbbal ko aw turam waaye day laaj daal fële ca bitim réew koo xamante ne dafa jënd lu mel ni ak ndawal moo xam goog nag la wala xar xeet yooyu te ña koy rey foofa duñ wax bismillah euh, wala ña koy rendi duñ wax bismillah nee na muy laaj ba xam loolu nan la ko lislaam gisee lislaam nee na hmm. wa taamu allazina utul kitaaba xillun hmm. lakum hmm. yàlla nee na bu tubaab bi rendee dagan na ci yéen julli ngeen lekk wa taamukum yéen itam su ngeen ren rendee daggan na ci ñoom mm. bu fekkee tubaab bi bëy la rendi mm. mbaa xar mbaa nag ah mm. mbaa gëléem mbaa ganaar luñ ci rendi rek daggan na léegi lu tax mu ne boo xul bisimila jullit soo xut bisimila mbàkke ak rendeem day wax bisimi daqaar gi waaw bu ko waxul rek wax na leneen waaw bu waxul bisimilah rek leneen lay wax ah. bu dee tubaab bi nag même bu waxul bisimilah du wax loola du wax dara du wax dara moo tax dem gi dagan te ñun bu ñu rendee toxuñ bisimilah du dagan lu rek la sew sew boobu moo ci am macha allah ñoom mën nañu rente duñu wax bisimilah mhm. bu ñu ko waxul bu ñu wax bisimilah duñu wax duñu fa wax leneen dëgg la waaw macha allah jërëjëf Serigne Ñing moo ci topp nee na moom ci heure julli yi lay ñëwaat moom itam mhm. nee na rawatina nag julli tàkkusaan ak timis mhm. ndax da koy fekk fa muy liggéeyee muy laaj ndax mën naa bàyyi ba wàcc julli ko te ci waxtu wi lay doon wala déet tàkkusaan ba wàcce ba julli ko da ngay da bu dee timis a génn man ngaa wàcc julli ko su fekkee balaa vingt heures vingt et une heures da nga wàcc mhm. waaye timis moom bu dee takkusaan moom doo bàyyi ba wàcc di ko julli da mhm. boo jullee tisbaar danga fa fay julli takkusaan su fekkee ngànt am na wa shukran jërëjëf oustaz ñu jeexale ci mbokk mi nee na moom abu abi abu hurayra radiyallahu anhu la bëgg nga nga wax ko tuuti ci ay jaar jaaram ak mooy waa ah, jar naa wax ndax dégg nañ barki démb ay gaa yu ko song song yu metti dëgg la moom Abu Hurayrata. ah bon waaw waaw. loolu nit ñeme na ko ci réew mi. laa ilaaha illallaah. ci yàlla mim réew. loolu ñu wax ko ko. <laughs> benn saaba boo xam ne. Hmm. dem nañ banaan daf daan jaay addis. laa ilaaha illallaah. dem nañ ba daf daan dund ci addis yi. xanaa dañoo naan dem nañ ba naan kéré addis sàngam. Ah. Abu Hurayrata suñu mbàkkee. Hmm. moo ñëwoon ci yonante ba ne ko. sallallaahu alayhi man de bëggatuma ay tool. Hmm. bëggatuma bitik. bëggatuma nangam. Mhm. mu ne ko loo bëgg. Mhm. mu ne toog ci sa wet loo xam mokkal ko. ma bëgg nga may ma kiis. mu ne ko dékkal say loxo. mu dékki loxo mu mu ñaala ko la mu ko ñaala. Mhm. mu nettali addisam yi nag gaa yi nag addisam yooyu dara baaxu ci. koo koy Abu Hurayra radiyallaahu taala anhu. waaw as-sahaabiyul jaliil. waaw dund ak yonent bi li mu dund ak moom jërëjëf xam ci woon li mu xam ci moom nekk la yoo xam ne mi ngi ci biir addis yu bëri lool tabaarakallaahu euh, bu ñu bëggee dindi addisam yi du ñu dem wa mhm. shukran jërëjëf oustaz eh, jërëjëf mbokk yi ñu bind seen laaj yi ci email bi de di albidayatu arobas yahoo point fr ak ñi nga xam ne ñoo doon ànd ak ñun ci jotaay bi jërëjëf kon li ci mooy xam bàyyi waa rédaction bi ñu ñëw ak ñun ci xibaar yi ci français ak ci wolof ñu door a dellu si ànd ak auditeurs yi ci téléphone bi